pour euh, wax dil xam nga mbir moomu kañ de la tàmbali depuis trois ans depuis sax euh, affaire Massalikul Jinaan c'est ça non. jiitu na ko. ou bien même avant. waaw et tu kan moo ko njëkk a Sénégal. kan la c'est Idrissa Seck. pour te dire que ils ont une haine viscérale pour président Karim Wade bi ñu ko génnee prison jour bi ñu ko génnee prison. il a parlé de deal. foofu la jëkk a tàmbali ñu tegati ci processus bi di continuer bi ñu daje Masaalikul Jinaan tu te rappelles ñi waxati dil Tuubaa génne ne génne leen ni su loolu loolu du warmaal sax kilifa yooyu teg loolu boobu ba léegi chaque semaine on parle de deal par certains journalistes waxuma yéen ak des chroniqueurs. mën nga ci mën nga cee boole sax. non non non mun naa si bañ a boole de toute façon. nañ ci bokk si buggee boole dinaa la si boole. boole ma ci rek. mais je dafa am ñoo xamante ñoom ñooy remorqué loolu. et ceci a été conçu dans des laboratoires politiques de l'opposition pour que. xanaa bokk leen opposition. de ko comme pouvoir ngeen. le mot laa la wax. waaw waaw le mot deal. opposition boobu xam nga booy booy xam xel euh, yaa kon bokkuñu booy am xel yaa ndax parti démocratique sénégalais opposition la nekk loolu moom waxu xale la quoi xam nga dinaa si ñëw loolu moom waxu xale la parce que nous sommes le parti le plus traité depuis 12 ans kon ñu wax deal non loolu laa ne fu mu jógee processus la maa ngi ñëw ay ñoom mi ngi dinaa si dellu dama ne dafa am soo ñoo xamante ne ce sont nos rivaux ñoo constitué le mot deal pour essayer de freiner le PDS mais saa yu ko waxee Mhm. chaque semaine bu ñu ko waxee weddi na seen bopp. rivo rivaux des rivaux au sein de l'opposition ça veut que tey l'opposition est éparpillée te PDS bokkul ak ñeneen ñi. waaw euh, non xam nga. non da nga ne vos rivo vos rivaux. moom xam nga appelé seen seen rival. waa benn de l'opposition. Ah le mot boobu lañ xam ngeen la may wax. déedéet da ñu mais leeral ko je veux dire neel neel diw ak diw ñoo ko def. non j'ai euh, euh, pas besoin juñ ñu doon borom xalaat j'ai pas besoin. mais je veux dire et que se relayer par leur chroniqueur à travers les médias mais saa yu ñu ko waxee altine talaata àllarba ñu weer di seen bopp depuis plus de dix ans hmm. depuis plus de dix ans léegi sànq dama doon tàmbali ma ne dil nga koy teg si ndox du ndoddu Ablaye Wade insulté ko la nit kii laay wax ñi koy teg Ablaye Wade mooy président bi nga xamante ni il est seul président au monde boo xam ne day luyaas tey dëkkul këram ku ko teg président Macky Ablaye Wade waxul ak kooku président Doudou Wade wax na leen ko nii au Sénégal nii à l'étranger amul fenn koo xam ne de manière formelle wala informelle bu PDS di wax ak ab Benno Bokk Yaakaar mais ñu continuer rek chaque fois bu PDS taxawee force am di jóg rek ñu créé moo boobu naan jiit et tout léegi nag tey ci mu ja wax loolu moom mooy Mimi Touré mais Mimi Touré ñun nous considérons qu'elle n'est pas de l'opposition hmm. bokkul opposition ku jóg barki démb bokkul lu mu bëggoon bu sottee du nekk fii te kooku mënuñu jox benn leçon de morale yi ne politique la quoi ñun du ñu tardé xam nga ñun qu'est-ce qui nous intéresse moom mooy le président Karim Wade ñun ñi ngi suivre processus dina dem congrès bu ñu paree congrès dina ñëw Sénégal dina nekk candidat nekk na candidat ba pare participer aux élections 2024 léegi président Macky Sall dafa génne euh, def déclaration ne day def dialogue politique wax ji foofu la nous nous avons pris acte mais pour la